donc amoon nañ accès dugg ci biir mais en même temps dañu mën a génne parce que ñu xam ay waaye nekk adduna bi rek xam ne li amoon Pikine en face tool cinq ñu xam ne dafa waaye ki nga bokkal di liggéeyal euh, tey jii nag lañ ñëwoon pour def dernier fee yi donc depuis 10 h moins 5 ñu ngi fi. Mm-hmm. donc arrivé bi fekk nañu fi donc def nañ dernier fait ñu ngi non di waaj départ. Mm-hmm. gis ngeen ful bi nii ak nit ñi. Mm-hmm. tay jii yaakaar naa ni ku xool oto yi nga xam ne. Euh, police ah. wax dëgg yàlla am euh, dañ leen di jaajëfal ndax def nañ seen matuwaay yëpp. ñëw pour def dernier fait bi. xool nan la def ba rey ko. ban matuwaay la jël pour euh, rey ko. lépp am nañ ci loo xam ne leer na leen nañ. ba tax na ñu ngi nii gis nga ne ñu ngi départ. Sénégal damay wax ne. lu fi waay di def na xam ne. lu leer lu leer lu leer waa ji mu ngi ci oto bi voilà waa ji mu ngi ci oto bu giri bi waa ji mu ngi ci oto bi gis nga mu ngi fii waa jaa ngi ci oto bi waa jaa ngi ci oto bi vraiment gis nga mu ngi seen police ñu ko yóbbu waa jaa ngi ci oto bi gis nga police vraiment ñu ngi def liggéey bu am solo vraiment gis nga waa ji jël nañ ko ba yóbbu nañ ko vraiment gis nga waa ji jël nañ ko ba yóbbu nañ ko. lii nii atteindre nañ ko xool nañ. atteindre nañ ko kon lii moo xew tey fii Pikine. Uh-huh. Uh-huh. vraiment. Uh-huh. gars yi ñu ngi def liggéey bu am solo. am solo parce que vraiment affaire bi. garaaw na garaawaay boo xamante ne. moo ne pour Sénégal am boo ñëwoon matinal. waaw nga xam ne am nañ matuwaay yoo xam ne.

voilà mi ngi dem déggee suñu xool